gaawoo fukki fan ak juróom-benn weeru février atum 2019 dalee nag jàmm ci xibaar yi ñeel campagne électorale bi li ci gën a sa bokk na ci président Macky Sall mi bàyyi xel Sénégal yi nga xam ñoo nekk ci bitim réew kuréel gii duppee seen bopp association islamiste pour servir le soufisme ñoom nag ñi ngi woote ci jafe-jafe yi nga xam ne mën naa am ci tarixa yi ak élection waaye di ci woowaale jëruñ ci nga xam ne moom ngi dénk wàllum karange ca Tambacounda Ousmane Sonko moom nag mi ngi métti li nga xam ne amoon na fa waaye di massawu ñi ñàkk seen bakkan ak ñi gaañu ci accident boobu amoon di woowaat tamit ndaw ñi di gën a xool seen taxawaay wala soogi marche orange njiital coalition Idy 2019 mi ngi fa woon ànd ak mbooloo mu takku ñu ñëw ci yaatal gi. ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi njiital coalition benn Bokk Yaakaar président Macky Sall moom nag mi ngi bàyyi xel sénégalais yi nekk bitim réew ginnaaw mu nekkee ci jur benn waxa lu nu mel waaye nag mi ngi wax ci wàllum financement banque ak dëkkuwaay Youssoufa mi nag Sélé Mbaye ñoo tataan ay kàddoom. la diaspora sénégalaise, la quinzième région di Sénégal diaspora boo xam ni seeni doom ñoo jóg dem bitim réew daan doole li ñuy indi ci réew mi mat na ñaari yoon appui aide publique au développement bi Sénégal di jot deux fois l'aide publique au développement plus de 1200 milliards de francs CFA par an moo tax ñu ubbil leen ñu am place ci kuréelu état bi dans la gouvernance ci gouvernement bi assemblée nationale avec 15 députés élus par eux-mêmes et parmi eux mais la diaspora fas yéene naa xool les conditions de la création d'une banque dédiée à la diaspora pour le financement de leur habitat et pour le financement de leur activité de retour au Sénégal maa ngi leen di masawu coono di leen wax bu doon sama sago vingt jours campagne yi danaa ñëw seet si leen en Afrique en Europe en Amérique en Asie waaye gis ngeen population yi ñoo ma fi téye te tukki xajatu fi njiital coalition Idy 2019 Idrissa Seck nag mi ngi ci bët Saloum bu dëkk bi foofu ci Ourossogui mbooloo mu takku ñoo ko fa xaar moom nag nee na yëf yi bett na ko ndax xaaru woon lu ni mel waaye nag boo gisee loolu am rek mooy nit ñi dañoo bëgg li nga xam ne mooy coppite ñu déglu ay kàddoom ak Sadibou Fall ak El Hadj Kane. que le même désir de changement qui traverse l'ensemble du peuple sénégalais n'épargne pas la population du Fouta, meurtrie par les mêmes difficultés et les mêmes souffrances que partout ailleurs. bi ñu duggee Kanel loolu la le test que c'est le test que j'attendais, le test grandeur nature pour confirmer que désormais la victoire dès le premier tour est possible. ginnaaw ubbiteb campagne bi boobaak léegi gis nañu nag ay message yoo xam ne ay këru diine ñu ngi koy def ngir rek ñu woteel diw wala ñu bañ a wateel ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay candidat kuréel gi nag duppee seen bopp association islamique pour servir le soufisme daal dinañ ci antu ndaxte nee nañu lu ni mel mën naa indi ay jafe-jafe ak fitna lu jëm ci wàllum élection yi ñoom nag ñi ngi woo ki nga xam ne mooy jëruñ ñu dénk wàllum karange mu daal di def ay matukaay waaye képp koo xam ne jàpp nañu la ngay def loolu rek yoon daal di tegu sa kaw Moussa Bey moo ñu ko teewaloon Sénégal ba muy Sénégal ba léegi Chrétien mas na ko jiite muy Senghor te ba mu koy jiite boobu suñu kilifa yu tedd yu mag yi ñoo fi nekkoon waaye dañoo xam ne yëfi àdduna yëfi àdduna kenn ku ne mën na ko jiite xooluñu woon religion xooluñu woon lennam ndax bu ñu xooloon religion duñ ko bàyyi mu jiite Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye waat jaar na fi donc bu ñëwee tey ba ci élection yi ñu toll ñu gis ñoo xam ne ñu ngi mbubboo tarixa yi di tudd ay tur loolu garaaw a garaaw la wala yeesu billahi taala loolu mën naa taal am réew moo tax ñun AIS comme dañuy sàmm patrimoine suuf bi ak sàmm réew mi ñu ànd nekk benn loolu bi ñu ko déggee dañoo tiital kii njëkk interpellé mooy ministre de l'intérieur ndax ñun ca gannaaw avant élection yi ñëw am na ñu fa doon insulté euh, maanaam tarixa yi donc loolu bañ ca taxawee gis nañu ministre de l'intérieur jug na ñoo ñu jàpp leen yar leen ndax am na loo xam ne boo ko laalee mën naa mën naa yëngal am réew mën naa gën sax guerre civile wala yasubillahi donc kon nag lii nga xam ne am na muy audio yoo xam ne nit day wax ñu xàmmee voix am des fois sax mu wax fii laa bokk des fois wax nangam laa bokk wax wax joo xam ne mën naa yàq sax élection yi wala yees bi lay temps la mën naa tax ci sax élection du am mën tax sax kuñ gagné loolu nga xam ne dañu koy dugal ci wàllu tarixa sax yeneen ñi mën nañu riposté daan ne nangaw ki nangam nga xam ne léegi waxatuñu xëccoog politiciens yi waaye xëccoog diine lay doon ndax xool politiciens yi li ñu xëccoo rek doy na sëkk ci wàllu politique buñu ci a garaaw kon ñu ngi interpellé ministre de l'intérieur comme ci élection yi dugg ci leen loo wërta digg ñu jàppale fa nga nekk ñu ngi leen wax li mu gën a sensible muy binum tarixa yii gars yi commencé ci dugal ñu ngi wax kum ci mënti doon moo xam murit bala na dem jàppi ñooña nañ leen jàpp interpellé leen. yóbbu leen ci kanamu justice kanamu yoon ndax dañuy yëngal jàmmi mi. fukkeeli fan ak ñettu campagne électorale bi Ousmane Sonko mu la Sonko président mu ngi woon foofu ca Tambacounda moom nag métlu na li nga xam ne moo amoon di accident bu faat nit am nag ñu ci am ay gaañu gaañu waaye ci boobu ndaje nag woon na ndaw ñu ñu ko gën a xool seen taxawaay ndax nee na kenn jaru ñu ci faat seen bopp leen war a soxal mooy daal di liggéey ngir askan wi Abdoulaye Dione ak Ali ñoo fa nekkoon. yàlla nañu yàlla musal ci musiba yu mel noonu parce que su amee rek ñi doon daje di jàmmaarloo yépp ay doomu Sénégal lañu te Sénégal dëkk bu ndaw a ndaw ndaw la boo jeexee tuuti rek boo moytul soo yégee ñaari génération ñetti génération ku dem ñi seqoon mbir mi sax ay mbokk lañu ñu ngi leen di jaale seeni mbokk di leen jaale waa Tamba yépp waaye di ci profito di lancé un appel à la jeunesse jeunesse su Sénégal appel appel bi ma leen bëgg a lancer mooy amul benn homme politique benn homme politique bu war a jar ngeen di jël seeni bakkan di ko sacrifier man mi taxaw seen kanam en premier nit da ngay sooy dem ba joxe sa bakkan da nga koy joxe ci ay idées yooyu défendre ay principes yooyu defendre ak bëgg sa réew. xibaar yi ci gàttal. dañu koy dooree rek ak Madické Niang mu njiital Madické 2019 moom nag daal dinay wëyal campagne am ma nga dem foofu ca Italie ca Brescia nara daje nag ak aswan yi nga xam ne ñoo féetee foofu ginnaaw sax ñu bari xalaatuñu wala sax dem fi nga xam ne mooy yenn dëkk yi njiital coalition Madické 2019 ci àjjuma ji mi ngi foofu ca Brescia mu nekk nag ci campagne bi muy dem ci dëkk boobu ànd ak Aminata Lô Dieng Mouhamadou Lamine Massaly Madické Niang ak délégation wam nañ gisante ak daayira yi ak yi nga xam ne ñoo nekk ci boobu dëkk ginnaaw nag ak meeting boo xam ne nañ ko def foofu rek mii mu wane li nga xam ne mooy programme di jàmm ak xéewal ginnaaw fitna gi amoon foofu ca Tambacounda jëwriñ bi ñu denk wàllum kaaraange jël na ndogal na na takk der yi ñooy ànd ak yile candidat waaye nag moom waxoon na ni Ousmane Sonko dafa bañ lu ni mel Ousmane sonk moomu nag tey ji daat na ci andi ay leeral waaye nit mi ngi rafet lu boobu décision président Issa Sall moom mi ngi wéy ni campagne am ginnaaw fitna gi amoon foofu ca Tamba tey ji na nekk ca Waalo Dagana ak li ko wër lii nag moo fi nekkoon xibaar yi ñeel campagne électorale bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jóg leen dig daje suba incha allah bàyyi leen di ngeen di wéy suñu programme ci biir Dakaractu TV